jamono mbirum Cheikh Béthio Thioune bu ñu ci dellusiwaatee niñ ko xamee tribunal correctionnel bu Thiès eh, daal na koy teg kon ci eh, kawam ñeenti eh, tuuma démb ba daal di koy jël kon denc ko kon foofa ci kaso ba ci wàllu tuuma yooyu nag bu ñu ci taxawee bu ñu demee ba ca cëppaandaw la bu dee yoon dëggal na lu ni mel daan yu mitti mën naa tegu ci kaw cheikh bi ba njiitu cantakun yi ci xibaar jukke ci wàllu yoon bu dee dëggal nañ ko mën a tudd tëdd kon ci giiru dundam may mun a njaay mooy dellu si ci loolu homicide volontaire ak complicité maanaam faat nit am ñu la ci jàppale recel et de cadavre sans autorisation muy suul ab néew te amuloo ci benn ndogal ak association de malfaiteurs maanaam ab mbootaay bu ànd ngir def ñaawteef muy ñeenti mbir yu ñu tuumaal kii nga xam ni mooy Cheikh Béthio Thioune bi ci njëkk di faat gi ñu koy tuumaal yoon da cee wax ni ki ko def mën nañ koo tëj ngir gu dundam ndax dañoo jàpp ni ci anam yu ñaaw la amee article 45 doolu ci ne képp ku bokk ci crime bi daan bi dafay yem képp ak ki nga xam ni moo faat bu fekkee nag da nga jël néew suul ko te amuloo ci benn ndogal daan bi mën naa dem ci ñaar ba juróom benn weer yooyu tëdd teg ci ab amaan bu dalee ci fukki junni ba ñaar fukki junni ci suñuy koppar bu fekkee da nga yore ngàndaay te amoo ci ndogal article 302 daf ne daan bi jàpp nañ ko ci benn weer ba juróom benn weeru kaso amaan bi nag dalee ñeenti junni ba fukki junni képp ku ci jàpp dañu lay daan juróom benn ba ci ñaar fukki at yooy tëdd